jërëjëf mbokk yi ngi leen di duy rek di leen siyaar fu waay nekk rek si réew mi ak si bitim réew te ñuy seetaan bu ngeen gisee taxawaay bi na xam ne dimanche Fallou Ndiaye moo woote raxas nag la woote raxas nag boo ko déggee moo organisé woon dimanche bii ñu génn diggante Diop 2 ak Caatu Ngéwél li tax raxas nag dimanche bi ñu dëgmal moo organisé waat ci diggante Xeeru Ngor Garo Gar Koña numéro 2 ak xale bi nga xam mooy Milk Jour tey nag Xeeru mooy def open de presse ñu nuyu ko rek bàyyi ko mu nuyu mbokk internet bu ko defee ñu nuyu si liggéey bi le géant di Cap maa lay nuyu baax di la ziar. waaw Modou Anta maa ngi lay ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi sant sumay ñaari waajur di wax jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye maa ngi nuy waa Ngor gépp di kontaan si ñëpp ci teewaay bi di remercier ñëpp di wax ne gis nañ taxawaay bi ñu nuyu adduna aussi di nuyu képp kuy bëggee xeeru Ngor ak fépp foo mën a nekk ñu lay jox loxo di sàkku ñaan bu baax a baax a baax si bés bi ñu jëm muy dimanche incha allah foo toll si wàccaay bi dimanche li ci des bareetul sa diggante ak gaaro gaar fi ma si tollu koy gaar laa koy wax gaar pare naa de xaar ma barke mu Mouhamed pare naa billaay wallaay tallaay pare naa loolu rek laa am lu ma lay wax xaw ma pare nga xaw pare woo mais man pare naa billaay wallaay non gaar nag mooy toujours pare mii ci sa wet barke alxuraan pare naa su ma koy wax ni sax gaar yaakaar dara la damaa entraîné de barke alxuraan damaa entraîné billaahi wallaay par rapport ak wàccaay bu gàtt bi. liggéey naa de. man xam naa liggéey naa bu baax. billaay wallaay xam naa ne liggéey naa de naa doole mën nañ bëre ba ginnaaw suba mais duñ ci yegg. Mm. waaw. loo xalaat ba ne du ngeen si yegg. yéen parce que doole ji daa bari buñ laalantee mu jeex. waaw moom tamit ay kombaam du yàgg de du guddeel benn amateur. moom benn porte la oto benn porte la. benn. benn porte la oto benn porte. benn porte kese la. gaar benn porte la. da nga wax ne benn kele la kon. benn porte la moom benn. wallaay boo ñëwee xam ne géant bi ngay waxal de. barki alxuraan mais kele boobu yàgg na see jeexal làmb de. kele boobu kenn mosuma see daan. loolu daanu ma. waaw. xëy na xëy na nag xamuma quoi. Hmm. xamuma mais buñ bëree pare dina ma xam mbër mu ma jox cër la nag. waaw jox naa ko cër trop. parce que am na ñu daan jógee am déen di ñëw ba fii di ma supporter. Ah. waaw daan dagg seen paas di jóge déen ba fii di ma supporté waaw foo dafa am ay soppe de déen gi mu dëkk noonu ah. dama fa am ay soppe ñu may bëggee carrément barki alxuraan mais bii paa nag jàppal ne kon booyam yi du ñëw parce que tamit euh, ku wàllu yan sa dëkk dafa tëggul dëkk mu doon tëgg sax moom daa matul la mu mat rek moo tax gars yi ko fi ñëw fi man ah. waaw ok muy mbër boo xam ne bu jekkee bëre bu dee bëre te du guddeel amateur aussi lan ngay wax noo bu jekkadee daanu fu ma sa jekkadee bëre day jekkadi daanu rek day jekkati daanu te bu dimanche incha allah day di daanu du jekki ba kar làmb ji jeex. songukat la de. du jekki ba kar làmb ji di jeex. gaar maa ko dàq songu téeméeri yoon te dimanche yi nañ ci xam dara. lan nga entraîné ba tax ngay dégager confiance bi xeer. soo ma xoolee xam ne liggéey naa loolu du ma la ko wax sax mën na tuus yu ma tuus nii ñaata minutes la mën naa ko tuus ba suba. ba suba te boo bëggee léegi nii ma dawaatal la 45 minutes. barke Maolana Cheikh dama liggéey de waxuma lay caaxaan nag dama entraîné barke alxuraan. est-ce que mën nañu xaar dimanche xeer mi bëre woon ak Koña 2 wala mi mujj a bëre ak Jackson wala mi bëre ak Boy Yëmbal est-ce que xeer boobu noonu mën nañ ko xaar dimanche. xeer bu raw boobu parce que man ñi may bëreel ni duñ sumay adversaire. ñi may bëreel ni ñëpp duñ sumay adversaire man li ma def si làmb war na tax ma war a weesu fii yëpp. comprendre nga mais gars yi ñoo tàppet aw ma solution ma jël ko mais dinaa ko wan ne du man ak yow man ak ñi si kanam la te nañ ma xaar suma ko daanee nag bu ñu wax ne dama kaa man de wala dama kaa ëpp doole wala nangam de dinaa ko daan avec la manière incha allahu rabbi Kouta nag moom loolu la wax ñàkk adversaire moo leen boole mais konoon gars yi si kaw la war a bëreel. waa gaar ban métti la fi métti bay ñàkk adversaire. naa seetaanoo moog Ama bu Malika. waxoo ma ba ku tàng kan la ku tàng kan la gaar daan ku tàng amul daanul kenn ku tàng mënut a daan ku tàng. xeeb nga gaar de. xeebu ko dama liggéey xam li ne si man gëw ma ko moom man sama bopp laa gëm gëw ma keneen moom lu mu liggéey moom la li mu man moom la mais man su ma ñëwee dimanche incha li ma man mooy fay. maa man maa ëpp doole maa gën a féete xale. ok ci côté mobilisation aussi parce que gis nañ ne làmb ji phénomène bi moom instant yi mooy xale yi mobiliser rek di gaaw a am combat fan nga toll ci mobilisation bi. loolu Fallou xam na xam na ñaata laa jël ci moom. waaw du ma ko wax na ñëpp ñëw dige yaa ngi fi ñun loolu la ñuy wax rek di woo ñëpp nañ ñëw dimanche incha allahu rabbi waaw di woo Ngor Wakaam Yoof di woo ñëpp na ñëpp ñëw surtout suma mafia Wakaam bi maa leen sant bu baax a baax a baax yee Wakaam lañ jóge ba fii ñëw pour teewal ma. ñoom Tafa xam nga maa leen di siyaare bu baax a baax waaw di kontaan si ñoom mais di wax ne suma booyi mbayaar yi maa leen di siyaare bu baax ñoom tamit di leen bëggee mbayaar yi waaw sonn nañ si bés bi de ñoom am nañ si ay coono quoi mais mention spéciale sama booyu écrit bi sama booyu écrit bi aw ma seen fay waaw maa leen di ñaanal bu baax jàmm waaw di siyaare koo xamante ne moom du ma ko du ko yem si ñaanal sax su ma amoon lépp ñaan dama ko koy defal muy sama père Ibou Diop yee mbagum jëm man ak moom ñooy ànd ak fajar ñooy ànd ngoon billaay su ma yeewoo dama koy woo balaa cinq mu fekk ma fu ma nekk maa ngi koy sant bu baax di ko ñaanal jàmm mais di wax ne ngor gépp ñun li ñuy ñaan rek mooy gars yi nañ génn dimanche kaar yaa ngi fi tike yaa ngi fi dara du manqué incha allahu rabbi loolu la ñuy wootee loo koy mujjee wax di ko wax ne gaar ñun pare nañ pare la bu dee pare woo ba léegi nag dootoo pare mais man pare naa pare naa pour lépp boo bëggee ñu bëre mën nañ bëre xeex moom bu ko jéem waaw bu ko jéem de ku la ko digal bëggu la ay wax laa wax de ay lébu la ma laa làkka baa xeexee kala ko digal bëggu la <laughs> la xeexalax njool mi xamal ne sam noon la voilà baa xeexee dama laa lekka la leer la ma la wax baa xeexee dama laa baxal lii man maa la ko wax gaar dama mer de dama jóge si ndam gars yi war a bëreeg man daw nga ñëw sant naa la ci loolu mais boo xeexee doo doo ko def de billaay wallaay bul juree gëmmal lañ nga ñëw comme ni nga daan def ñu daan la nànk nga ñibbi nànk. jërëjëf voilà mais di woo ñi may jàppale. moo doon def sans frontière dama war a woote. ayca xam nga la moo tax ma war a woote. Ah. parce que bésu mag laa am de le numéro un moo ma tëgg de. voilà Fallou Ndiaye ma koy nuyoo passage di nuyu son papa Matar Ndiaye bu baax di ko siyaare. waaw di woo ku mel ni son papa docteur Niang borom suma assistance muy sama sponsor bi nga xamante ne loxo musul dañ ci man maa ngi koy woo bu baax ci bés bi. di woo le ministre Mayacine Camara ñu ngi koy woo bu a baax ci bés bi. xam nga di woo ku mel ni Baye Boris ñu ngi koy woo bu baax di woo ku mel ni Antou Samba xam di woo le maire de Ngor Magaye Ndiaye ah, ñu ngi koy woo bu baax di woo Amadou Gueye Ati xam nga di woo ASC yëpp ASC yëpp ñu leen di woo xam nga ah. di woo ku mel ni Abdou Karim Ndiaye suñu ndiyaay borom black and white waaw ak docteur Sy maa ngi koy woo bu baax a baax si bés bi xam di woo ku mel ni Yaaya Yaaya bu Mambay ñaa maa lay woo ci bés bi bu baax a baax a baax di woo képp koo xamante ne dem nañ ci yow di la wax na ñu lay fàttali bés bi dimanche xama ñu ñëw jàpp si mais di gërëm koo xamante ne xama suñu garaan suñu lépp la muy Amet Googal Amet Googal maa lay siyaare bu baax di la gërëm gis naa say coono si man billaahi gis naa sa taxawaay si man yal na suñu borom fayal ma la xama di gërëm képp koo xamante ne sa loxo mu ci bés bi ñi may àndal nag mention spéciale gaa yëpp su ma limee jum ñoom Jibi Diop xama ñoom Bacca xama Xaarim Ndiaye Juma ñëpp maa leen siyaare Ambaay Mam Sam Magu xama maa leen siyaare ñëpp mais di wax ne su ma su ma kii nii Ibi Diop 2000 yàlla na sunu borom fayal ma ko gis naa taxawaayam si man barki alxuraan mais di wax ne ñun nañu jàppale ñun loolu la ñuy saaku ñun saaku ñu lu ñu nit di jox ñu def ko suñu poos am nañ ko li ñuy ñaan mooy ñu si tigéey rek gars yi mën a dem esaat xama di leen siyaare ñëpp di leen bégee di bégee suma doom day idi sama mbokku taalibe di siyaar presse bi yëpp xama di leen jox seen wàccuwaay xama di wax mention spéciale buuba buuba saw buuba saw maa ngi koy siyaare bu baax ak nabi waaw maa ngi di bu baax a baax jaajëf